Bismillahirrahmanirrahim. ñu ñëw ci ñàngalem sëriñ tuuba ci ñaat téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñaar sëriñ masamba mbàkke radiallahu taala anu mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo ni ko dama jàq te jaaxle sëriñ mi ni ko lu mu doon mu ni ko dama jàng alxuraan gis yawma yu bari lool te bu ci ne bis penc moo ko tax a jug te muy benn bis sëriñ bi ni ko mën naa xalaat lool man na ko lool ma ñëw dem ba amub diir dikkaat ni ko ma sàmba mboolem yow ma yooyee nekk ci alxuraan yàlla yabal na ci jenn yow ma mu dikk wax ak man mu yow ma na don kulla unaasin bi imaamihim yàlla nee na bu man xiyaamee kuréel bu nekk ka leen dajale laay soxla bu ma seetee bu sellee ma boole ko ñoom yóbbu bu selladee ma bàyyi ko fa ma sàmba xanaa ku leen atte ci sunu jëmm seen xel war a dal mu ni ko waawa mbàkke sëriñ bi ni ko boo demee fa ñuy jaaye laj ko lañ nga fekk fa bu ñu sàññ mooy tijji wala ubbi nga seet ko def ko ci sa bakkan laaj lu muy jar bàyyi ko fa dem ba amub diir xet ga nekk ci sa bakkan te neex la nga am njëg te mooy li muy jar ci xaalis boo dikkee da nga koy jënd mu ni ko waaw serigne touba xaadaloo la mu maxtaarloo lo niko bañu sàññ ngay jënd am bañu sàññiwut mu niko ko bañu sa bañu sàññiwut bi niko lutax lu tax bi nga sañi ba xam li ci biir jëndoo ko mu niko dama xam ni bi ñu sàññiwut moog bi ñu sànni ñoo te dara jugu ci serigne bi niko hakasa moy nun werna netali bi am na bu nu rok moom ci kayam. booba andi woon nako ko ca waxtaani sëriñ tuuba mel na ni booba sëriñ masamba jóob radiallahu taala anu lañu waxoon moo ko doon laaj booba nag wér na lool ndax sëriñ saalihu radiallahu taala anu moo ko nettali ma dégg ko fi mu ne mën naa doon ñaari nettali ndax sëriñ bi ay leeram mooy tuuru ci xol yi la jaaxal sëriñ masamba jóob radiallahu taala anu moo jaaxal sëriñ masamba mbàkke radiallahu taala anu ba ku nekk di ko laaj ci sëriñ bi lii jutta bilmaaxi lbashiiri nnaasiri man bi yuniiru kalkala almucaashiri wajxal fuyuuda kalkali muniira xulooba xisbika wa astic nuura wallahu aclam sëriñ tuubaa xaada lahu lahu maxtaar lahu nee na saa su ma nee saa boroom mu ni ma saa jàmbi su ko ne mayma ma ma fobal mayma ma ji may wax dama koy tàgg may na ma ko ba noppi ma dikk di ko fob wér sëriñ bi bokk na ci ay tegginam lépp lu yàlla subhanahu wa taala di joxe day xool yoon yi mu koy joxe mu aw ca ba matal ko bu wér door koo ñaan loola loolu moo tax li muy ñaan da koy wóor ni am na ba noppi akramtani ikrama man maasha faal wa kullu ma aradtuhu minkan faal yaquudu li kun fa yakunu xaaji minka bila xiqdin wala tahaaji neene itam ci mbindam du ñaanal kenn lu dul la yàlla tànn mu war koo am walaw alam sëriñ tuuba xaada laho law maxtaara laho mas naa wax baabakar saar mënoo bàyyi malaani mooy yàlla yi ngay abbee morsey topp yàlla yi wax ñamu àndaloon dangeen naan la ilaha illallahu siiw na daa mel ni booba da doon yëngutu di tudd yàlla di ci boole leneen abbee nag wallahu alam ñëwer ci njàngalem Serigne Touba ci ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk Serigne Touba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo bi mu jugee ci géej gi mas naa wax Serigne Muxtaar Binta Lo radiyallahu taala anhu yëg naa ni wogarnu jot na ndax bi ma demagul ci liggéey bi saa boroom daa bind ñaari malaaka wàcc leen ñuy war àdduna fu ñu dégg ku ma tudd ñu taxaw diglu ko bu ñu noppee fu ma mën a nekk danañu ma fa fekk ni ma diw doomi diw ak diw wax na lii ci yow bu dee aw yiw ñu fay ko bu dee ab safaan ñu jéggal ko waaye léegi saa boroom daa nangootu loolu defar na yaari gaal benn bi mu duy ko aw yiw ba mu fees dell ba ca des mu duy ko aw ay ba mu fees dell mu sànni leen ci jaww ji ku may tudd di wax ci man aw yiw ñu koy sotti ay xéewal ku may tudd di wax ci man ab safaan ñu koy sotti ay ay aw ay moo tax wagar nu jot na siiw na sëriñ tuba xaadaloo law maxtaar loo mas naa woo sëriñ am satu jaxate radiallahu taala nu ba mu ñëwee fekk sëriñ bi ci melo woo xam ni jàpp na ni waru caa fekk sëriñ bi mu na a dëpp sëriñ tubaa xaadaloo law maxtaar loo ni noon naa kooku xam satoo ak sil mu daal di ñëw sëriñ bi ni ko doxal nii te ñëw ci wetu ndeyjoor gi sëriñ bi def tekk ba mu yàgg mu ni ko ku am puutar puutar mooy bari fetal te mënoo jam mbaa boo mënee jam it ñimewoo àll bi dangay seet dànn mooy ab jamkat bu mën a jam te ñime àll bi nga jébbal ko say puutar daal di defaat tekk ba mu yàgg mu ni ko yéen ñi ma jébbaloon seen mbir sooyu leen ni waat tekk ba mu yàgg mu ni ko dugg naa àll bi rëbb naa ba ñëw lu amoon njariñ ci àll bi andi naa ko dara desul lu dul setal loxo yi ba mën a jëfandiku ci rëbb mi sëriñ amsatu radiallahu taala ni ko bu ñu sañoon dagaan la foofu sëriñ bi ni ko sañ ngeen ko mu ni ko noon taq gi yàlla nu ko binde ba tax na mënunoo set te sun taq gi du xajamal set sa set gi te sa set gi suturaal na sunu taq gi ma bëggoon nga sarax nu yërëm nu ba nun mën a mel jëfandiku ci rëbb mi sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni ko noonu la soobe sa sa boroom daal di defaat teg ba mu yàgg mu ni ko loolu taxutoon ma woola sax dafee gaar rek li ma la doon doye mooy sayidina jibril alayhi salaam dafay jóge léegi ma di la xamal ni lu weesu tey bu fi ñëwee siyaar si ma moo ko fi andi. waaye du lenn ndigal lu muy jële ci saa boroom di ma ko andil mbaa xam-xam bu mu may xamal ndax li des ci li may seq ak saa boroom saa boroom seppi na ko ci ba mu set wicc te bu ñu ko ci joxoon lu tol ni zara mu seey ba mel ni kawar gu ñu dugal ci ab taal lu weesu tey bokkaale gi boroom gën a bañ mooy tudd ma di tudd keneen mbaa du ngeen ko def mu ne ko fasunu ko yéene sëriñ tuuba la wala maxtaar loo mel ni kuy bëgg a waxaat daa di teg kaala ga ci gimiñ ga ni ko li des saa boroom namul mu feeñ fii waaye ba booba siiw na lii kun bi kun sarmadan waj al masiriya saa jawfal fara lil wara mislal maxaariini حفظت ما سين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر am na ko masa andi ab kaamil bu rafet ci sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaar loo mu koy xool ba mu yàgg daa mel ni moo dàq bind muusa te mooy muusa alima radiallahu taala anu sëriñ bi daal di ub kaamil ba ubbi waat ko yam ci fasuddol wasaaxa mu bind ko nii wasaaxa muy saat ci ak saat sëriñ bi ni ko lii bu doon musa du ko binde nii am sab kaamil wala du ko defe nii am sab kaamil weer na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo moo digaloon musa Muusa radiallahu taala anhu muy topp kaamil yi ñuy andi te mu desee wow weer na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo mas naa toog ak kenn ci njaboot gi doon xeli kafe ba mu jëfandikoo ci ab kaas ba mu des mu teg ko soxna sa di ko jël mënu koo yëkkati sëriñ bi di ko ree mu ni ko dama cee bëggoon a barkeelu rek sëriñ bi ni ko daa amul ndigal wér na am na bis sëriñ Tuubaa xaadalawlam law maxtaaloo ni demal wool ma siraaju njaay radiallahu taala xanhu mu ñëw sëriñ bi rabbale ay baaraamam dugal ko ci biir ni ko dama laa bëgg a dalal alxuraan bëgg ngaa dal alxuraan da di jël alluwa ji ni ko bismillahi fekkoon na mu bind alluwa ja ba noppi boole ko sëriñ moodu awa njaay radiallahu taala anhu wér na li ñu dégg lépp dañuy xamal fonk gu sëriñ bi fonk jàng alxuraan ak jàngale ko ku mel ni nag ku ko am waroo am doom mukk di ko jàngaloo tubaab ndax bu gënoon nu dalal tubaab bala moo làqu wala alam am na ko sëriñ tuba xaadaloo la maxtaaloo masa binduloo ab xaaju kaw ci alxuraan ba mu ko andee sëriñ bi ubbi ko yam ci wa in tajab fajabun khawluhum ba mu ko ñetti yoon ca kaw werna amna ku ma sa ñaan serin tuba khade lo law maxtalo ab kamil serin bi jox ko ab kamil ni ko bo deme jang ko mu mok nga bind ko dello ci ko werna serin abdurrahman njay radiyallahu ta'ala anu bi mu faato serin tuba khade lo law maxtalo neena ku sakkanu dundu juroom fukki at juroom fukki kamil juroom fukki dom wér na loolu fi la téere bi yam muy waxtaanu ñatt téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñett noo ngi ñaan sunu dund gépp di ab liggéeyam ci barkeem ca namu ko tànne ci nun subhaana rabbika rabbil xissati ama yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin téere bi foofu la yam sëriñ alxaaji mbàkke mu xabsa moo ko dajale foofu nin ko waxee woon loolu mooy xaajub ñetteel bi xaaj bu njëkk beeg bu ñaaree bi jàlloon na ñu ñaan yàlla na suñu borom defal ak dégg ak topp wa wasalaamu ala sayidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al mayamin wa man tabium bi ihsanin ila yawmi din ñoo ngi ñaanal mbokk yi nga xamee ni it ñooy sonn ci tesaare gi sonn it ba tey ci jàppale ci suñu eleji mbàkke ci wéral gi defaraat gi ak tisaare gi yépp ñun suñu borom it may leen ci tawfiix ak ndimbal ba tey it léeg-léeg téere bi am ñu ci gis loo xam dañ ko laajaat ngir bëgg ci ak leeral wala ñu am loo xam ni da leen ci jaaxal ban bëgg ci ay gëstu loolu képp koo xam ne da ngaa bëgg a ba xam ci lu leer man ngaa jokkoo sëñ Malik mi nga xam ni moom la sëñ Alhaji Mbàkke teg yooyu ci loxoom ma nga nekk ci këram gee ci yoonu daru muxti wa waaye lii mooy numéro téléphone incha allahu képp ku jokkoo moom rek da ko mën jot benn bi mooy 77 976 20 97 bi nga xamee ni nag moom tigo la mooy 76 695 06 45 numéro yi daal képp ku ci jokkoo ak sëñ Malick mi nga xamee ni moo yor wàllu téere yooyu sëñ ëllëji yooyu maanaam bu dee loo ci leerlu ci yooyu wala loo xam ni da nga bëgg mu àgg ci sëñ bi ak leeral gan ca am incha allahu boo jokkoo ak moom ci numéro yooyu dang ci xam lu leer téere yi nag doon yu tasaare yoo xam ni jullit yi ñu ngi ciy dolli ko bu wér a wér a wér ñuy ñaanal suñu alxaaji mbàkke mi nga xamee ni moom la ko yàlla jaaree ci loxoom sëriñ Touba def ko muy ab liggéeyam boo xam ni moom la ci liggéeyal sëñ bi waxe woon ci nuur daan di ko ñaan yaa jaailan xatt ya fawqa wanni wasanna xayri yaa xasimal man ni yàlla na ko sëriñ tuubaa defale noonu moom it ci am mindam. yàlla nañ sunu borom boole ñun ñëpp ñi koy digloog ñi koy jàngaleeg ñi koy jàng ñi koy tisaareeg sunu borom may ñu taalube di ñaanal it sunu mbokk mi nga xamee ni day sonn jamono yu nekk ci tisaare gi muy sëñ Moustapha Thiam ci njaareem ak ñeneen ñu ki sunu borom defal ak taalube guñ nangu